maa ngi leen di nuyu ñëpp di jiital si nuyoo bi xaadim euh, di am plaisir aussi wax dëgg yàlla dajawaat ak wa Reptel di rafetlu kàddu yi nga xam ne jot ñëg Cheikh Ndiaye Cheikh Diène ak Cheikh Diop ak Danilo kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko fi vraiment du kàddu yu yoo xam ni yu rafet la jëmale ko ci si si ñun donc comme ni ko dandi ni mu ko waxee dañuy moom sunu sunu mbokk la ndax euh, sama yaay turando bi mu njëkk am seen kër la ko amee donc loolu lu yàgg la su ma nee maa ngi kontaan dajawaat ak yéen parce que yàlla dafa dogal tey bu jataay bi amul woon defe naa ni feek ñaar fan wala ñett fan jataay bi dina am ndax depuis bi ma ñëwee démb lay wax ni il faut mu waa reptel ko ni ma ko waxee woon daaw yéene woon ko bi ma jënd si xaru tabaski ma ni su ma sañoon tabaski bu amatee ñu toog ñu waxtaan xool li nga xam ne aussi dañ ko fa yéene jënd ci xar comme ça dina ma yombalal que may dugg si kër yi kon may def dugg si kër yi këroo kër du xool ay xar yu may déclaré donc suma mënee am possibilité dajeeg waa rab waa waa reptel waaleykum salaam asan na def donc dajeeg waa Reptel euh, ma wax leen xëy na li ma bëgg ak euh, li nga aussi tamit yéene naa ko jënd si xar comme yàlla dogal na at yu yu bare bare si gannaaw ñu ngi koy def te xar yi dans un premier temps peut-être lu ko jiir Dakar laa daan jëndee xar yi mujj bi depuis at yu bari génnuma Tiwaawan ak Mboro donc tey su yàlla dogalee daaw ma ñëw si yéen affaire bi ngeen yombalal ma ko ba li nga bëgg ñëpp am ko donc ren aussi loolu laa fa seen incha allah doxal ak ak yéen incha allah bon je pense que teraanga yi ngeen wax fii yi nga xam ni tey séq nañ ko bi ngeen ma pare ne seen foire bi dama jàpp ni loolu defuluma kenn sama bopp laa ko defal ndax suñu gisee ay benn association boo xam dañuy taxaw ku si nekk peut-être am nga sa métier am nga sa profession booy doxal mais yàlla dogal nga am passion di nekk éleveur ngeen toog waxtaan ni da war a créer benn foire boo xam ne tamit bokk na aussi tamit lii gën a dundalal dëkk bi donc ñun même bu ñu nekkoon parrain sax war nañ si mën a jàpp donc pour que loolu mu mën a réussir Tivaouane comme ni nga ko waxee ñu yàlla dogal ñun ñëpp ñoo ko seex ñun ñëpp ñoo ko bokk que mu nekk si élevage bi que mu nekk si agriculture que mu nekk si sport que mu nekk si culture ak lu mën doon rek ay doomu Tivaouane rek ay doomu Tivaouane rek ñoom ñooñ teg si kanam ñu koy doxal donc lépp lu ñu yëkkati ñun en tant que doomu Tivaouane war nañ ko mën a doxalee ànd ak ñoom ba loolu mën a am ndam boo man nag damay faral di wax ni bon àdduna yàlla fi bind doomu aadama euh, ku nekk mu am lu la dénk li nga xam mooy sa boo bon man nag dama jàpp ni lim nga ñaanal nag moom lay sàkku chaque fois ndax dama ne man am rek moo ma jig ndax ki nga xam ni yaakaar na ne ku mu gis moo ko war a jox moo ko war a teral donc loolu laay ñaan chaque fois dama ne man liggéey xëcco xëccoo ma ko Euh, yàlla dogal na certes xëccoon naa fi mairie Tivaouane parce que boobu wutuma ko woon parce que dafa am lu mu bëgg def sama poche wala dama ko jël pour suuf mais j'avais juste une vision un programme un projet pour Tivaouane bu doon titre maire rek moom soxaloon tey Mboro moo daan taxaw c'était à ma portée mais ka fa nekk tey man maa ko fa teg maa ko fal maire donc bu doon titre maire la soxaloon kon mboor laay dem taxaw jël ko te du ma xëccoo. mais yàlla dafa dogal nit ku nekk destin doomu adama yàlla moo koy tracé fii la yàlla dogal fii la fii la fii la fii la sant ci kër euh, ma yàgg di ko wax ni tey sama waajur bu jigéen mi ngi tëdd fii boo demee mboor sama waajur góor mi ngi fa tëdd donc ñaar dëkk yi ma def fii bàyyi fale mais projet bu ñu amoon ak yéene bu ñu amoon pour Tivaouane muy amoon beneen gis-gis boo xam ni moom la amoon pour changer xar kanu Tivaouane loolu nag ba ñuy def Tivaouane c'était pas juste par rapport ak loolu lañ bëggoon parce que bu doon loolu keroog bi ñu perte mairie bi c'est dañuy dagg suñu activité dagg suñu relation ak kenn comme ni ñuy faral def tëj sama buntu kër commencé man la nekkuma fi wala recevoir ma kenn mais dañoo jàpp ni man comme je dis sama mission man bu ma yàlla dénk mooy jaamu yàlla ci biir jaamu yàlla yi man loolu laa gëm te loolu mooy li nga xam laa gën a soxla comme comme profession sax ko ndax dama ni mënuma man euh, di fanaanee di naafila jëmale fajar mënuma di wér di jëmale suba dinaa julli sama julli juróom ba mat sëkk dara duma ko tardé mais bala ma sama xool mën a sedd mooy xool fu soxal dimbal wala koo mën a jàpp ma jàpp la ko te yàlla tax ndax bari na peut-être action yu may mën loo xam ne peut-être ku ma jegewul même mën nga ma jege sax te doo xam ndax je le fais de manière discrète dinaay dugg Tivaouane timis wala maa dugg sama kër deux heures du matin des fois du ma ñëw yabal ñoom maam Ngouda Mbay Sàmb mbayloo ñu wër daara yi guddi wala wër ay kër néew doole wàcce fa lu nekk te doomu aadama du ko xam donc loolu parce que loolu dañ jàpp ni loolu ma suñu mission. bañ ko dal defee ba léegi nag ba fex dëgg yaa rëcc wuñ ko comme li nga wax ni politique nag yàlla fa dogal ñu dugg si par accident lañ si duggee parce que bu doon politique sama papa dama judd fekk comme muy def mbooro social ci dimbali nit ba waa mbooro xëy na ko yaa ñuy jiite sa boobu am na liggéeyam parce que commerçant la euh, daana daje si mbedd sax camion otom yu muy am sa moom ko te xamul ni moom oto yi mais mu toog mbooro ti def lu baax ci def si département def ko si xadara bi aussi donc ba yàlla dogal ko waa mbooro xëy na ko yaa kii yàlla dimbali ko mu téye ko nag ba deux mille deux mille deux si la décédé donc lépp parce que dama ñuy wax nit teyuluñ ko dara lu du njëriñ man nag mënuma def neneen parce que ko xam sama waajur bu góor xam man lu may def da ngay xam ne nekkul lu may jàng nekkul lu may tricher nekkul lu may jéem aussi donc ndono la boo xam ne yàlla moo ko def sama si man parce que damay wax ni li sama papa jur bari na El Hadj Ngalgu Njariñ bi bari na mais tey bañ sama te man tudd ma Ngalgu sama papa moo tudd Ngalgu des fois nit ni ma Ngalgu moom sant lan la wala ñu ma ma leen sama papa moo tudd Ngalgu ñu ma dàkkantale loolu mais loolu day wane ni li mag ñi nekkoon démb rek mooy dëgg donc taxawaay bi ñu am bi aussi tamit taxawaay boobu la parce que dañu ko fekk suñu wajur di ko moo tax lépp loo xam ne xadara bi yëkkati na ko parce que bis damay wax ak Serigne Abdou euh, loolu c'est en 2012 boobu def moo sa politique ma fekk ko Dakar si appartement am man ko góor gi dama bëgg ñaanal ma doon poche xadara bi xadara bi soxla rek su ma lambee sama poche faj ko am yéene si jumaa ji boobu kenn taxawul loxo jumaa ma jumaa ji dama yàgg di wax ne ku ma yàgg xam sax da ngay déggee ma ni jumaa ji gëm naa ne maa ko war a eggale ba yàlla dimbali ma tey ma bokk si jamaatu Nuur Assunnah euh, euh, yàlla dogal ma bokk si membre yi créé euh, jamaatu Nuur parce que booy xool ñi signé si notaire bi boo ñu boo ko toppee matuñu ëpp matuñu dix personnes te yàlla dimbali ma si dix personnes yi signé si notaire bi pour ñu créé jamaatu si la bokk suñu première rencontre avec xalifa général matuñu sax dix personnes donc loolu sama yéene la yàlla di fay foofu bi ma jël décision si damay defar. mur bi yàlla dimbil na ma tey la ma fa la ma sa yaakaaroon sax dañu deux cent cinquante millions mais tey romb naa sa deux cent cinquante millions si mur mais li may sant sama borom mooy tey réalisé naa boobu donc loolu dama koy sant sama borom donc pour wax rek jusque politique casquette la boo xam ne dafa sol dama ko sol yàlla boole ma ak Serigne Abdou mu boole ma ak président Macky Sall ma engage pour la ko mais lu ma politique politique du tax tam ma perte samay valeur du tax aussi tam ma perte aussi la ma gëm ndax bi may ne déclaré fii mairie Tivaouane boobu woo nañ ma kilifa yi woo nañ ma ci kaw ne ma dañ bëgg nga bàyyi jàppale le maire sortant bu doon góoma sama bopp damay naan d'accord mais dañ ma wax dama ne du ma ko def dama ànd ak nit wax sama kàddu te loolu dara jarul ma ko may delluwaat gannaaw ak lu ma su mën a subir nag yàlla dimbi la ma j'ai honoré li ma bëggoon def ba li am yàlla dogal na ko donc politique bi nag du tere ànd ak nit au pouvoir wala bañ ànd nit au pouvoir ñun mission bi nga xamoon la yàlla def si ñun ñu déroulé ko tant yàlla ñu yàlla mi ñu koy mën loo incha allah on le fera avec plaisir muy tabaski bi ni ko war a taxawee jàppale nit muy gàmm ni ñu war a taxawee jàppale nit muy leneen social bi ñu war tax dimbali nit tant que yàlla mi ñu koy mën mun mu néew ñu bari dinañ ko partage ak doomu aadama ji donc loolu mooy li nga xam moom lañ gëm parce que avant d'être politicien yàlla doog ay doomu aadama lañ donc am xel di xalaat donc suñu yàlla dimbale ñuy ñàkku ñàkk li ñu am incha allah dañ ko jàpp nañ ko dañ ko bokk doomu aadama yi donc pour wax rek nii ñun lépp lu ñu def fii Tivaouane wala def ko si doomu aadama defuñu ko ngir ngistal defuñu ko ngir wut buzz wala ngir wut kii bi ngeen ñëw seen caméra yi sax xawoon na ma jaaxal parce que dama ni man xam naa ni yéen yéen a leen woo fii donc pour wane rek bon vraiment y a des yoo xam man bëgguma ko sax ko donc vraiment di sant waa Reptel di wax daal jàpp leen vous avez un partenaire donc à chaque fois loolu mën a yëkkati ma yëg ko incha allah dinañ ko ànd doxal ko ba li ngeen si bëgg aussi yàlla dimbali ñu si bon ñu ngi jëm si tabaski euh, defe naa ne après bu caméra yeeg yëpp fayee dinañ toog waxtaan suñu programme tabaski xool na lañ koy déroulé ba nga xam ni tey liñ si yéene yëpp ñu man ko matal incha allah bu neexee yàlla en tout cas di leen remercier waat bu baax baax di leen wax ni daal euh, comme ni ko Xaadim waxee léegi foire yi bari nañ Sénégal mais foire bu mel amul Sénégal loolu nag seen yéene moo rëy ah, ah, ak seen vision aussi moo rëy sa que xaalis bi mais def loo xam ne au moins ku nekk dina ah Tivaouane de vraiment bañ fa demee lañ fa gis gisuñu woon de donc loolu wax dëgg yàlla ñu ngi leen si félicité waat bu baax a baax Cheikh Diop teraanga yi mu wax tamit wax dëgg yàlla ñu ngi ko si ñu ngi leen si sant aussi wax dëgg yàlla bu baax a baax di ñaan daal yal na yàlla gën a dëgëral ànd bi gën ko taxawal euh, semaine bële bon mais je parle même pas semaine temps yële passé dama toog benn bind si maison de la jeunesse yi quoi xaw ma sax man xaw ma ko ni maison de la dafa may scandale bind ni cité sama tur bon ay nit woo ma ni ma man xam naa waa ji woo naa ko mais ne daf bëgg a recevoir man ko man du ma toog ndax pour man moom mission moom ci kaw suuf mooy yàq der doomu aadama te bugguma sëñ Mansour dama dégg mu ni li lay li ngay jégale doomu aadama mooy li yàlla defal loolu ngay jégal doomu aadama peut-être kooku ñaan na yàlla mel ni man te man ñaanu yàlla mel ni moom parce que man du mu bind lu ma xamul du yàq dara aadama dara jar lu ma ko tey ñi fi nekk mu autorité yu bees yi ak ñi fi jóge ñëpp kenn jar lu ma si may wax si nit ki safaan wala di wax si nit ki lu ñaaw kenn parce que avant tout damay jàpp ne aussi tamit su ma xaratul dee ma xam du ma nit yàq der nit rek parce que dama bëgg yàq der nit ma ko dara jël mais lii wax rek lu dul dëgg du yàgg donc fi yàllaa fi nekk te kenn nekk fi teraanga ak wërsëg lépp yàlla ko doomu aadama yoru ko man loolu laa donc euh, may wax rek incha allah yal na yàlla nangu ñaan yi ngeen ñaan yëpp rek te lu mu si doon aussi ñëpp ñu bokk ko ñu partagé ko incha allah bu neexee yàlla en tout nañ bu baax a baax maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp quoi